asalaamaaleykum comme ni ko président waxee léegi depuis démb à midi tàmbali nañu liggéey bi ci commission nationale de recensement des votes yéen ñëpp dégg ngeen coow li ni mu tàmbalee ak li nga xam ni ñoom loolu la ñu commencé di wax parce que yéen a ngi dégg 82 de ñu am ñu am quatre 80 yeneen ak yeneen. mais bi ñu fiy mujj def conférence de presse ci biir wax ji waxoon nan leen ni ñoo ngi dégg ni am na ay correction yu ñu bëgg def dans certains départements pour mën relever seeni taux ci département yooyu pour mën rattraper gap bi ci proportionnel bi parce que dama lay waxoon suñu estimation c'est vingt huit ci proportionnel bi cinquante cinq la am ci département yi ñoo ngi def ay manœuvres pour mën a dans certains départements changer loolu parce que proportionnel qu'on changer loo jox sa bopp rek changer dindi nga ko ci keneen et bi ñu demee démb tàmbali liggéey bi ba tey jii nii ñu continuer ko surtout tey danoo intéressé wu ci bureau de vote yu bare gis ngeen ñu ni Podor ay quatre-vingt-onze mille voix lañ fa am tam ay soixante cinq mille voix là où l'opposition ñu jox leen ay ay miettes ay miettes alors que yéen ñëpp suivre ngeen évolution politique bu Sénégal gis ngeen rien que Ousmane en 2019 dans ces zones là am na xam ne am na fa plus de 16 pour cent waxuma laa coalition bi intercoalition bi nga bëgg leen jox beaucoup moins que ça xam nga loolu mënul sax jàll ci xel. moo tax on s'est intéressé particulièrement ci quatre départements yi muy Podor di Ranérou di maatam di Kanel et yiñ fa gis dafa yéeme dafa yéeme parce que ay écart yu extraordinaire nga fay gis da ngay gis ñu jox benn bureau de cent cinquante jël wàllu trois jox Yewwi Askan Wi quatre xam ngeen ni loolu mënul ne mais comme ñun li ñuy wax dañ koy bëgg toujours teg ci li nga xam ni suba daanu mën taxaw jàkkaarloo encore ak sénégalais yi mën leen kawan moo tax bi ñu duggee ci biir kees yi danoo jël bu nekk ñu relever irrégularité bi ban type la wax également ban bureau de vote la ban lieu de vote la ak ban commune la d'ailleurs benn instant sax bu bëggoon nañu photo ko pour bu ñëwee mën ko présenter mais ci lañu président bu commission nationale bi ni photo mënu ko permettre mënul permettre photographie mënul permettre photocopie et que à la limite on peut consulter comme on veut def suñuy remarque mais du ko mën a permettre et li ma ko tontu ci loolu mooy ce qu'on est en de faire amul lu fi confidentiel c'est des documents publics déjà parce que ay PV la nga xam ni mi ngi ci bureau yi mi ngi ñu tax fépp amul lu fi confidentiel et que tey jii nii comme on est en travaux pour la régularité et la transparence des élections war na nañu mën permettre yi ñu gis Sénégalais yi gisandoo ko ak ñun à travers des photocopies ou des photographies bu ko defee ñu mën ko wane et y a rien qui doit être caché à ce niveau-là et que bu fekkee ni il maintient sa décision à côté de sa décision qui partira au conseil constitutionnel qu'il mette mon observation qui est qu'on sa décision et que loolu aussi na dem au niveau du conseil constitutionnel parce que ça n'a pas de sens même si il faut lui avouer sa disponibilité parce qu'il nous a laissé comme la loi le permet ñu fouiller comme on veut ce qu'on va continuer à faire parce que avec li ñu def comme échantillonnage ak temps bi doyul pour mën a dugg ci yëpp liñ ci jot a gis yóbbee nañu ñu jàpp ni fi mu toll ni moom mënul sax proclamer il faut dès demain pour que carton yëpp ñu ubbi ko dans ces quatre départements PV par PV de bureau de vote ñu xool ko bu ko defee irrégularité bu mu mën a doon en profondeur ñu mën ko génne pour ensemble mën a arrêter ce qu'il faut comme décision concernant yooyu nga xam ni moom la moom la ñu gis en titre de à titre d'exemple boo jëlee lu mel ne département de Kanel commune de ji lieu de vote Bambagol bureau de vote numéro un muy bureau de vote yi nga xam ni wax naa leen chiffres yi nga fay gis da ngay gis ni des fois du sax am signature benn coalition coalition amul benn signature signature administration bi leen nga fay gis le président du bureau son secrétaire son assesseur le secrétaire représentant coalition yi amul benn signature kooku di benn catégorie après dinaa leen lii liiral yëpp deuxième catégorie bi gën a grave mooy ay bureau de vote yi nga xam ni amul sax signature administration bi amul signature représentant wu coalition yi cest di que PV la bi nga xam ni mi ngi ci biir enveloppe bi sans aucune signature aucune même l'administration inadmissible c'est-à-dire que mën na doon PV bi nga xam ni fii Léo moo ko def dugal ko ci biir enveloppe bi jox ko mu dem au niveau de la commission nationale de recensement des votes c'est ça que ça signifie mën la jóge ci n'importe qui parce que amul benn signature amul signature administration amul signature représentant des des des coalitions irrégularité boobu aussi ñu noté ko mais loolu bu baree ci ay département war a mën a impacter considérablement ci résultat département bi war a impacter ci seen part ci propor liste proportionnelle bi mais là mooy la correction dont on parle parce que loolu moo leen di permettre ay quatre-vingt-dix mille yi nga xam ni tegoo ko fenn soixante-cinq mille yi nga xam ni tegoo ko fenn ak leneen ak leneen leneen ak leneen nga ni j'ai plus de cent vingt mille cent trente mille yu ma jël voix yu ma tegul fen C'est ça qui te donne deux députés de plus sur la proportionnelle. Et qui diminue deux députés de la proportionnelle pour, Yéwi, euh, pour l'intercoalition Yewi Walou. Donc c'est cet exercice-là. Et j'ai signé, j'ai lu un bureau, un bureau de vote tout à l'heure, mais je vais vous lire yi ñu gis yëpp yi nga xam ni ci type d'irrégularité yooyu nga ci nga ci nga ciy noté boo ñëwee ci Alana bureau de vote 1 département de Kanel commune de Aroué lieu de vote Ndiott ci à la même chose boo ñëwee ci Doudé Bagué bureau de vote numéro 1 tu as ces irrégularités boo ñëwee ci commune de Aroué lieu de vote Lougoubal bureau de vote numéro 1 tu as également ces types d'irrégularités nga ñëw ci si on prend Podor commune de Walalde lieu de vote Walalde bureau de vote numéro 6 tu as ces irrégularités nga ñëw ci école Walalde toujours bureau de vote numéro cinq école Walalde 2 tu as nga ñëw ci bureau de vote numéro 4 toujours dans cette même école tu as ces irrégularités nga ñëw ci bureau de vote numéro 3 tu as ces irrégularités avec des écarts qui peuvent aller jusqu'à 399 voix vous imaginez un peu nga ñëw ci commune de Mboola Birane lieu de vote Galoya Peul bureau de vote numéro 2 tu as également des irrégularités nga ñëw ci bureau de vote numéro 3 dans le même dans le même lieu de vote tu as également ces irrégularités bureau de vote numéro 2 tu as également ces irrégularités ainsi de suite le bureau de vote numéro 8 de la commune de Galoya Toucouleur tu as également ces irrégularités le bureau de vote numéro 1 commune de Mbolo Birane Tilamol Diabanabé tu as également ces irrégularités commune Mbolo Birane lieu de vote Tilouki bureau de vote numéro un tu également des irrégularités Doumgalawo tu as également des irrégularités sur Séral Bay bureau de vote numéro deux y en a y en a vraiment énormément ça peut me prendre toute la soirée à vous lister ces irrégularités la et c'est pas exhaustif parce que vous savez que carton yi fees na daanaka salle bi bu fekkee dama leen bëggoon dajale ñoom ñëpp dans ces départements la et mënoo di leen ubbi benn par benn mais ku gis lii war na mën a yóbbee nga ni finalement on demande au président de la commission bu ko defee ñu suspendre publication résultat yi mu prévoir demain 17 heures pour nous permettre à l'intercoalition ñu ubbi bureau de vote par bureau de vote bu bëggee sax mu doon instance publique bu ko defee sénégalais yi mën a xam li xew ci zone yooyu notez avec nous ces irrégularités qui sont inadmissibles parce que une irrégularité bi nga xam ni day toucher un PV sans aucune signature ni de l'administration ni des représentants de coalition kooku c'est inadmissible ñu koy valider li nga xam ni administration rek moo signé amul aucune coalition c'est inadmissible ñu koy signé moo tax tout à l'heure il a confirmé un chiffre parce que ñun dañoo tàmm di leen wax li nga xam ni du dañ on ne joue pas avec les chiffres bi ñu toogee fii à la dernière conférence de presse dañu leen sur les résultats que nous avons au moment où on vous parle ci département yi on est à 55 là où eux ils sont à 57 c'est ce que je vous avais dit ici bi ñuy quitté léegi bi mu defee décompte yi ci ku nekk département yi nga gagné ak la nga fa jël il a confirmé que Yewwi à trente 39 et Wallu à 16 ça fait exactement pour l'intercoalition 55 vous que ce chiffre là il n'a pas bougé et c'est à partir de ce chiffre et des projections yi mu war a joxe ci la leen yóbbu woon ci 28 et ce sont ces 28 là à partir de Podor de Matam de Kanel de Ranérou avec ces scores qu'ils ont sortis et qui sont sur les PV départementaux, c'est à travers ces quatre départements qu'ils sont en de faire la correction. Parce que le chiffre ils donne un nombre de députés sur la proportionnelle qu'ils vont s'attribuer pour nous, la, pour nous les arracher, ces, ces, ces députés-là. C'est ça. Montar, comme noté dans irrégularité, ce sont ces irrégularités qui font qu'à Podor, 91 000, qui font qu'à Matang, 65 000. Est-ce qu'il y a lieu de proclamer ku nekk ci proportionnel bi ñaata nga am moo tax ba foofu ñu ni que mënagoo wax léegi proportionnel bi. tu nous as confirmé sur les listes majoritaires parce qu'on ne badine pas avec les chiffres mais ces irrégularités que nous avons notées si elles doivent être traitées elles vont impacter nécessairement sur la proportionnelle donc la proportionnelle ne peut être lue qu'après traitement de ces irrégularités et la profondeur de ces irrégularités va impacter en profondeur sur la répartition ci liste nationale bi et voilà mais demain incha allah on va demander que ñu ubbi carton yëpp ubbi bureau de vote yëpp bu ko defee jël temps chaque bureau de vote bu bëggee mu doon sax séance publique ñu taxaw si ku nekk gis la nga ca gis luñ ciy valider ñu valider ko avant que muy dem au niveau du conseil constitutionnel Parce que ñoom ils ont la possibilité de supprimer des bureaux de vote, mais ils n'ont pas la possibilité de supprimer un scrutin dans un département ou bien de reprendre le vote. Ça, c'est de la compétence du Conseil constitutionnel. Donc voilà en résumé li nga xam ni moom leen fa liggéey ak leen fa gis lan fa wax ak li nga xam ni moom lan fa nar a continuer parce que sénégal yi mënuñu mobiliser voter pour ñun ba pare par d'autres voies te jii Macky Sall bëgg ko récupérer d'autant plus que boo defee même ci daw ñoom ñu génne ko boo defee le cumul en absolu des suffrages de Yewwi plus Wallu on est devant eux on est devant Benno Bokk Yaakaar même ci seen yi nii dawal ñoom même ci seen yi nii dawal attribué wu deux jox ñu quatre 80 en absolu maanaam ñi woteel yeew yi nga boole ko ak ñi yooteel wàllu nga totaliser ko en nombre de voix on est devant Benno Bokk Yaakaar on est devant Benno Bokk Yaakaar donc la majorité ñoo ko yor on les a renvoyés à l'opposition parlementaire qui l'accepte mais la correction qu'ils veulent faire aujourd'hui est inacceptable donc voilà ce que je voulais dire monsieur le président ci li nga xam ni moom la ñu gis affaire bi bare na mais toog fii di leen limal lu dul jeex amul njariñ c'était à titre d'exemple que ñu jox leen ci yenn yi mais li ngeen mën a retenir mooy demee le travail va se poursuivre et pour nous il est important que ñu ubbi kees yëpp même si encore une fois on salue la disponibilité du président de la commission mais on on on on on, on récuse sa décision de ne pas laisser à la coalition la possibilité de photographier ou de photocopier ces irrégularités pour que opinion bi mën a gis ak ñun li nga xam ni moo fa xew ñu leen di gërëm di leen sant jërëjëf. Malick